yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be asalaamaaleykum mbokku internetu Dakar ah, bi ñu amati mbégte kontante ñaa li tey ne mooy 18 safar mooy safar gi mais ñu ngi dalal xamante ne tey muy sëñ Saliou Seck borom raaya ah di jànkatu xasaayit bu mag tey a dalal fi nga xamante ne tey ah mooy Dakar Midi International ñu fas yéene sekk moom tuuti ay waxtaan yi nga xamante di jëm ci màggal gi ak ay quelques baat yoo xamante dañu ko yëkkati jëmale ko li nga xamante mooy si xasaayit yi tedd yooyu noonu dañ koy bàyyi mu présenté nuyu ak ñu bokku internet Dakar Midi yi nga xam ñu ngi fu ne ci àdduna bi ah si Saliou Seck ñu ngi lay nuyu man zanna xayrallahi yuxni aw yadur fa zaaka fi daarayni suukadin wa dur man zanna xayrallahi yuxni aw yadur fa zaaka fi daarayni suukadin wa dur safar terootina sama deret yëngootina ma jóg man di way seex yaakaari jaam ñi safar terootina sunu deret yëngootina ma jóg man di kañ sëñ bàmba yaakaari jaam ñi moo ne woon sababu xaybati ya anna أراد أن أنال من حجاها وأن أكون سافحا لقومي وأن أكون خادما في دومي نقول نك دم جي ولف نصرانو تكون بالله ñepp dem niiraanu déglul ma wax la li waral màggal gi nga xam ne Seex Bamba rayal demam gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Abdou mm-hmm. noo ngi nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ñun dinañu seetaan mm-hmm. di ci jiital waa euh, site bi nga xam ne nii mooy Dakar Midi mm-hmm. di siyaar sëñ Abdou mii nga xam ne moo ñëw ba fii ngir ñu seq ak moom ay waxtaan ak ay njëriñ yoo xam ne ni yu jëm ci màggal gi la sëñ Abdou ñu ngi lay delloo nuyoo dëgg la jërëjëf lay fay nuyoo <laughs> jërëjëf jërëjëf ah, ci ñu waxtaan tuuti li nga xamante ne tey lu jëm ci li nga xamante mooy màggal gi boo xoolee màggal gi fi mu ne ni saa bu jubee rek am Sénégal réew mi àdduna naa day yëngu maanaam mbégte lay doon ci li nga xamante mooy fu ne si àdduna tey ah, ban yëg ngeen di am yéen murit yi li nga xamante ne mooy ci màggal gi waa kay sëñ Abdou mm-hmm. noo ngi dellusiwaat di santaat yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di santaat sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci noonu nga ñu ko laajee danañ ci sawar lool ndax euh, Sëriñ Tuubaa dafa liggéeyal boroomam ba am lim am liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñ boroom faye nag defal ko lu kawe njortam mu jóg jël xale maam ne damay sant sunu borom subhanahu wa taala waaye nag nee na dama so dama damaa lott ci cant gi moo tax ma woote ngir ñu sant li ma saa borom bis bi bisu sant la kon képp koo xam ne daal taalibe sëñ Tuubaa nga moo tax bu bu bis boobu nga xam ne moom la sëñ Tuubaa woote ci weeru safar di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis buñ dët buñ commencé bis bu njëkk bi rek ñëpp day seen xel day nekk ca bis bu mag ba nga xam ne moom la sañ Tuubaa digle ne mooy bisub safar ñu ànd booloo sant le sunu su yàlla sunu borom sëñ Tuubaa Xaadim Rasul loolu daal mooy tax bu weer wi teree kenn dootul amati benn yitte kenn dootul amati benn bëgg-bëgg kenn dootul amati dara lu dul egg ca bis ba ba sant la Serigne Touba boromam ni mu ko bëggee. dëgg la 18 mhm. euh, mooy sabab bi. waaw 18 safar. Mhm. fukki fan ak juróom-ñett la ci wolof. mooy ci weer wi nu ne. Mhm. waaw 18 nag mooy. fukk ak juróom-ñett. ci weeru tubaab. mooy mooy mooy mooy tubaab. waaye 18. mooy ci weeru wolof wi nu nekk muy weeru safar. dañoo wax ne buñ juggee ci fukki fan ya ak juróom-ñett ya mhm. loolu mooy bis bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa woote xaadimu rasuul mhm. di bis bi nga xam ne moom la woote ngir ñu santale ko boromam mhm. mooy moo tax ñu naan 18 safar gars sax ñu ngi ciy wax ne ginaar ñaari tànk la bëy ñaari tànk ñeenti tànk muy juróom muy juróom benn ah xar ñeenti tànk muy mu mu mu muy fukk euh, euh, euh, giléem giléem ñeenti tànk muy fukk ak juróom-ñett. Mm-hmm. nga xam ne daal dañ ne li commencé ci gileem. Mm-hmm. gileem. Mm-hmm. xar. bëy. nag. ginaar. boo ko boolee dalay jox fukki tànk ak juróom-ñett. sëñ Tuubaa nag dane cant gi ngeen may sant plaza borom. na ngeen commencé ci ginaar. ba ci gileem. boo ko wàññee nag mu jox la 18. di fukki tànk yi ñaari tànk ginaar ñeenti tànk bëy ñeenti tànk xar ñeenti tànk nag ñeenti tànk giléem loolu nag ab lim la boo xam ne nii euh, borom borom borom gis-gis yi ñoo ko gis euh, muy bis boo xam ne mhm. Serigne Touba dafa woote ngir ñu santale ko boromam mhm. ak cant nag mhm. dama daan dégg ci Seex Béthio mu naan radiyallahu anhu yàlla suñu borom yokki leeram yàggal fi Serigne Saliou ndigal mii nga xam ne nii moo ko toog te ko sëkk Cheikh Béthio la mu doon ñaan suñu borom suñu borom defal na ko mhm. ndax dafa waxoon ne am na ci moom yaakaar te yaakaar jooju yàlla tas ko mhm. ah, dama daan dégg ci Cheikh Béthio muy wax ne ah moom day mhm. Serigne Saliou sama sang ba daana wax ak cant fii ak demut ba cant ga des na kon loolu la daan wax Cheikh Béthio kon ak cant dangay dem ba mel na kuy ndam yàlla nag boo ko dee sant yàlla moo wax ne sant leen ma dane dana ñaan leen ma mhm. ma may leen mhm. kon Sëñ Tuubaa daa bokkoon ci nit ñi dégg loolu waaye bu ngeen ma ñaanee ma may leen mhm. cant leen ma ma dolli leen moo tax képp koo xam ne rek màggal gi jot na ngay ngay ngay góor góorlu takkaayu am loo bëgg ba def ko ci bu dewee déwénee suñu borom dalay may lu ëpp loola nga mën ko ci def bu déwénee bët bu set rek say mbir noonu lay gën a kawe ndax damaa mas a dégg ci Sëriñ Saliou mu wax ne ñaar ñu dend kenn ki def yitte ci màggal gi kenn defu ko ci. Mhm. kenn ki defu ko ci. bu ne ki ci defoon ay yitte lim sutee euh, moromam ak ak lam ko rafe mhm. dana ci bëtam. kon loolu mooy cant gi nga xam ne ni moom la Serigne Touba woote. Mhm. ngir ñu sant la ko borom la. dëgg la ah, boo xoolee li nga xamante ne moom màggal gi saa bu jubee di ñu gis ne murit yi bi ciy taxaw murit saa dina lay taxawee ci li nga xam ne mooy màggal gi. ci ban façon la si war a taxawee. waaw ah, lépp rek ñu teg ko ci sunna hmm. ndax Serigne Touba dane wallaahu yanzuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri sa nafxin bila dararin sëñ Tuubaa dafa wax ne maa ngi loo xam ne ànduma ak lenn luy lor euh, loolu nga ma laaj nag danaa ci sawar lépp looy def rek rawatina nga di ko defal ku tedd ki mooy sëriñ Tuubaa ngir sant ko boromam da ko koy teg ci sunna teg ko ci xam-xam la ci jiitu nag mooy ni ko sëriñ Tuubaa di jàngalee ci téere yi li commencé ci tasawudul siqaar muy ab yar ak i teggin sëñ Tuubaa lépp lu ko waaye di defar te tegoo ko ci xam-xam tegoo ko ci yar tegoo ko ci teggin yaakaar naa la ci bëgg man nga ko caa yaakaar waaye doo ko ci am ndax moom léppam doo ko tegoon ci sunna cant gi nag euh, nit ñi euh, euh, murid yi dañoo xéer du ma wax sax murid yi sëñ moom damay faral di wax ne képp koo xam ne nii ku ko xamul rek yaa koy ñàkk jublu waaye ku ko xam ba mos ko da nga xam ne moo gën la ne lu dul moom kon ñàkk ak ñàkk a jaxasoo moom mm-hmm. ak ñàkk a yëngu ci ay mbiram mm-hmm. waaye kenn bañu ko man jàpp naa ne kenn bañu ko sëñ Tuubaa mm-hmm. kenn bañu ko waaye li mu woote waxut ne murit bi ñëwal sant leen sa borom sëñ Tuubaa dane woo naa jullit yëpp jullit yi nag kuy tiijaan yaa ngi kuy xaadir yaa ngi kuy laayin yaa ngi ci rawatina kon murit bi kon daal ni ñu ko koy santale boromam li ci ëpp mooy ab yar ak i teggin xam ñooy kan xam ki ñu àndal mooy kan sëñ Tuubaa ko amoon personnalité la digganteem ak boromam dafa wagoroon boromam bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bu daan tudd boromam sax mhm. bu demee ba daaju xonq ci jeex dégg naa da daan dagg ci yaramam mhm. jël ci deretam di ci bind tudd suñu borom bi kon ku wagooroon suñu borom la ku ko bëggoon la ko ko fonkoon la mhm. képp koo xam ne am murit nga wala ngay ab xaadir wala ngay ab tiijaan ndax Touba moom sëñ Touba ñëpp la woon rawatina kii fi nekk li nga xam ne nii moom mooy kenoon l'islam mooy sëriñ Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Basir nga xam ne moom mooy mbégte mi mbégte lépp a ci biir kon bu wootee màggal gi tijaan bàyyiwul xaadir bàyyiwul laayen bàyyiwul chrétien bàyyiwul kenn ñépp la kon képp koo xam ne yaa ngi dem xamal li nga war a def mhm. sëñ daa woote njariñ waaye wuutu wut ak loru sëñ tubaa du woote ba ñëpp ñëw nga fa jëlee lu lay lor mhm. dafa wax na ni ñëpp ñëw waaye ku ñëwit na nga xam ne daal lépp looy def muy lu baax sëñ tubaa ngi jàkkaarloog yow mhm. waaye lépp looy def muy af sawaani sëñ tubaa ngi jàkkaarloog yow te sëñ tubaa lépp loo ko defal mu ful ko fay la muy lu baax kon nañ moytu def lenn loo xam ne luy tax la ëllëg yowmal xiyaam ñuy am benn benn benn benn benn ñagas-ñagas boo xam ne day am suñu diggante ak sëñ Tuubaa wala suñu diggante ak suñu borom dëgg la ma ñëw ci côté tuuti ci màggal gi foofu tamit fa laay jëlewaatee rek mooy li nga xam ci defar ay teraanga tey gan yi fépp foo xam ne ku jóge fépp fu mënta jóge ci ànd bu ñëwee biir Tuubaa incha allah doo am problème mu lekk doo am problème mu naan di nga lépp loo soxla di nga ko fa am boobu taxawaay seen taxawaay ci loolu tamit waaw loolu moom mhm. euh, loolu moom ñun ñun ñi dëkk Tuubaa mhm. xam nañ ne ñun duñ ci dara. te dañuy gis day gën di yokk rek at bu at bu ñëw day. xamoo lu tax ma xam ne duñ ci dara. Mm-hmm. maa ngi waat ci Seexul Xaddim fii may wax ak yow. Mm-hmm. yoruma lu ma màggale. waaye ni may jàkkaarloo yow nii xam na nii may jàkkaarloo yow yow laay jàkkaarloo yow. Mm-hmm. li ma ne sëñ Tuubaa dana defar sama màggal. moo ma gën leer nii nii may jàkkaarloo yow ndax maa ngi jàkkaarloo yow waaye laaluma la. waaye ni ma gë ni ma jàkkaarloo ne li li defar sama màggal sëñ Tuubaa denc na ko. te buñ ci yeggee mu jox ma ko. laa gën a gëm ci jàkkaarloo gi may jàkkaarloo yow loolu nag li koy waral mooy sëñ dafa wax ni ki nga xam ne nii dafa dëkk dëkkook man mooy ñi dëkk Touba seenug dem àjjana ajuma ko ci seenug jaamu yàlla waaye seenug wàllu xéewlu seen seenug dépense ajuma ko ci seenug liggéey ndax nun ci sëñ Touba la ñuy xëy di gont ay jànkati xes di lañ mm-hmm. mën nañoo toog fii duñ yendoo ñaar téeméer bu ngoonee ñu yor ñaar fukki junni wala fanweeri junni ki ñu koy jox nag mooy seexul xadim te du añ si ki ñu koy jox mooy seexul xadim te du ndekk si ki ñu koy jox mooy seexul xadim te du reer si loolu nag ku ko gëm da ngay xam ne yàlla mooy séddale te yàlla moo tibb jox sëñ Tuubaa képp ku nekk ci moom daal te li nga bëgg amoo ko na nga xoolaat sa xol wàllu bernde yet ni ko waxee Tuubaa moom bu dul màggal sax ku fa dem xam ne dëkkub teraanga la ndax ka fa tëdd tax muy sëñ Tuubaa wàllu bernde yi moom bu dara xewut boo fa demee waaye nag na màggal waaw ndax ku ci nekk jàpp nga ne daal loo def ren bu dewee déwénee war ngaa def lu ko ëpp ni ko sëñ bay waxee léegi mhm. waaw ñun ay taalibe lañ yoo xam ne lépp lu ñu am mhm. dañ koy duggaat sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa ni koy jox moo tax du nu ragal du nu tiit du nu jàq du nu jaaxle képp koo xam ne daal buñ tabaxoon fukki néeg mhm. bu màggal jotee dana bëgg tabaxaat yeneen fukki néeg ndax jàpp nañ ne daaw lu màggal si bu nee lu ko raw dana ñëwaat tey teraanga juñ ci def danañ ci defaat lu waaw maa ngi maa ngi maa ngi def sax occasion foofu. Mhm. di di di di di xaw a kiyaat sama mbokk yi sant géey ak ñi sant Diaw. Mhm. <laughs> ndax sëñ Tuubaa dafa dafa wax ne ànduma ak luy lore. yàlla sax doonu nit doonul koo xam ne. Mhm. da lay defloo mbir ngir nga loru ca. ba ci wàllu lekk yi am na xeeti lekk yoo xam ne dun ànd. te léeg-léeg gis ko sant géey koo xam ne day jël euh, euh, potub cagri boole boole koog euh, potu biringub guyaab mm. ah boole koog yàpp yàpp yàpp wata boor yi nga mm. xam ne ni heure bu ne ñu ngi defar xar yi daaw dafa am sama benn xarit bu ñuy wax sëñ Xaadim Jaañ moom mm. sëriñ Mbàkke Soxna Lo bi ma fa demee suuru maggal di ko jàngal dana ma sëñ Saali mu ne ma xaaral añ ma ne ko man de du ma bëccëgu maggal du ma teel a añ ndax bu ma añee damay diis tey damay jàng ba guddi loolu laay jaayante ci sëriñ bi mm-hmm. desal naa bi ma bi ma bi defaree sama li li ma waajee ci màggal gi. Mhm. desal naa juróom juróom-ñaar fukki xar. barki Seexul Xaddim juróom-ñaar fukki xar des naa ko ci gétt gi. daan ne ma nag ab jànk du xasida mu ne ma du ñëw ba ci man di dem ma di ko bàyyi noonu. Mhm. kon dañuy dañuy yeewi xar mu mag. Mhm. dugalal la ci oto bi nga yóbbaale ko. loolu suñ Tuubaa rek ko man xam nga ne kooka. ka desal daaw juróom-ñaar ñaar fukki xar. ren dana desal téeméeri juróom fukk wala ñaar téeméeri xar. kon kooka jàqut jaaxlewut muy taalibi sëñ Mbàkke soxna lu nekk fii di nit ku baax di koo xam ne nii moo ku mat ku ku ku ku gën ci màggal gi waaye réccu ko lekk dafa am yu war a ànd ak yu wërta ànd naan dafa am yu war a ànd mënoo jël lu sedd guy naan ko jël lu tàng jër ko ci teg biir dafa am lu muy lu mu di recevoir te ñu màggal ba pare nga jóge fa ñëw di feebar feebar boo ne da nga ci màggal gi laa ko jële kon nañ ko bàyyi xel yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog waa Dakar euh, midi <laughs> déglu leen li ma leen wax ginnaaw bu ñu jugee ci loola ñuy jóg ci wàllu transport waaw surtout surtout yokk paas yi yokk paas yi nan xam ne sëñ Touba woote mhm. sëñ Touba mi woote nag mhm. waxuma la murit bi damaa wax léegi ne amul murit amul xaadir amul la sëñ mhm. Touba képp ku jaxasoo moom mu faj say aju kon bu ne ab tijaan la wala bu ne ab xaadir laa na bul ne ab murit laa yor naa sama oto damay xool lu ma neex ma def ko déedéet na nga xam ne sëñ Tuubaa dafa woote ak ak ak sant yàlla mm-hmm. sant yàlla nag ki nga xam ne dafa war a dem sant la sëñ Tuubaa yàlla mm-hmm. nga gaare sa oto mm-hmm. war koo fayu junni ne ko ñeenti junni wala nga ne ko juróomi junni amu ko bu demul yaa la tee mu def ko yaa ko def kon nan oyofal xol yi te xam ne dafa am lu ñu sàkku ji xuloo taxul ñu daje xeex taxul ñu daje lu waay mën a dimbalee sa morom na nga ko dimbalee sëñ Tuubaa ci loolu la nekk. dëgg Cheikh mu Mountakha mii. Mhm. toogul ne damay xalifa général de Mouride rek. Mhm. li may def ci Mouride gilaa laa koy def. bu xaadir yi xewlee. Mhm. mu yónnee fa. bu tijaan yi xewlee mu yónnee fa. bu bu laayeen yi xewlee mu yónnee fa. bu ñeseen xewlee mu yónnee fa. xam nga lan lay dund innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihul bayna axwaykum ñëwaat ci alxuraan yi waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu booloo daal la def ngir lislaam ni ko Iran di waxee. waaw sëñ Muntaxa moom. mooy xalifatul islami islami ku bëgg ak ku bañ. <laughs> kon daal nan xam ne. Mhm. Euh, waa Dakar ti euh, euh, midi. Mhm. ñoo ngi leen di nuyu. Mhm. di nuyu nag seex Issa Sène. waaw Cheikh <laughs> di ku bëgg Rasulullah. di koo xam ne boo duggee këram lu mu gàtt gàtt danañ la jox kurus gu bees. dëgg la ne la <laughs> ne la jullil ci yonent bi téeméer yoon ah loolu yombut. yombut ah, ci yonent bi li muy def ci nit. mooy boo indi woon njàqare. bu la joxee kurus gi njàqaran loo mën di andi njàqaran nga day ni boo andi woon aajo aajo joo mën di andi aajo day saafara sëñ Tuubaa loolu rek la woote tag yërënt bi mhm. sant yàlla kon daal ñi ngi leen di woo mhm. di wax oto yi nag nañu daw ndànk waaw gone yi nga xam ne dañu yor ay moto ay jakarta mhm. nekk ci àll bi di supporter ay nit ñuy def ay soog nan ko wàññi te xam ne nag sangu ba set ab ab jullit dafa war a civilisé. dëgg la sol sa yére bu rafet sol say marakis xeeñ sa parfum. Mhm. yor sa saak boo xam ne ñetti yére nga ciy def boole ci sa kaamil alxuraan ak sa téere dollu. Mhm. dugg ndànk ci oto mu daw ndànk. Mhm. ba egg Touba nga wàcc dal fi nga def bu bu ñibbi si yotee nga ñibbi si jàmm. lu ko gën amul. <laughs> jël jakarta boo xam ne fii daanaka boo dugalee ab première coupe deuxième <laughs> daanaka aw xott lay doon. nga ne tës. ñàkk sa bakkan ki nga sippat woon ñàkk bakkanam. dëgg la sëñ Touba wootiwul loolu nan bàyyi xel loolu. oto yeet kenn mënta lekk ba lekk lu du sa wërsëg nan nan daw ndànk te oyofal xol yi mm-hmm. te xam ne oto yi xatut xol yi xat dëgg la maa ngi lu ñëpp dëgg la képp koo xam ne daal li ma euh, gis nga ci sa bopp mm-hmm. muy njariñ rek tax ñuy woote mm-hmm. noo ngi ñaan yal noonu yàlla defal dégg ak topp amiin dafa benn laaj doo mën a bëgg a laaj tuuti rek waaw li nga xamante ne mm. xale yi jigéen yi ah seen ñooy li nga xam ne mooy tuubaa da nga am na xam ne dañuy ñëw sa ba Touba duñu egg jumaa ja duñu ah. màggal si dañuy egg dugg rek buntu arrivé Touba sina bi commencé collègue loolu da ngay am na loo xam ne euh, euh, euh, Aliou mm, Abou mm-hmm. am na loo xam ne nax sa bopp la dëgg la nax sa bopp nag képp koo xam ne nii gis nga nit mm-hmm. ñàkk fu la mënta passé nga dëkk Dakar wala nga dëkk Louga wala nga dëkk Ndar wala nga dëkk fu mën di doon mm-hmm. ne da ngay màggali duy sa wëris ba mu fees nga def ci xartum pose say we <laughs> xeesal ba xonq takk takk takk say garafaas mhm. boo eggee doo dem jumaa ja mhm. doo siyaare sëñ Muntaxa mhm. doo dem fen yaw fa ngay màggale doo ko génn dañ lay berdeel ah ëllëg yow mal xiyaam ah feer ñuy dem day képp koo xam ne yëbaloo fa dara ab armuwaal bu bees tàq ku ko daaj lu bàyyi ko si biir nekk boo jëlut ci yére dugal ca yére yu riis boo ëllëgee boo bëgg boo sangoo boo bëggee sol doo sol ñooñu dañuy nax seen bopp Tuubaa boo fay dem benn yére mën nga koo sol dem ba ñëw. Mhm. am déet. Mhm. benn yére. mën nga koo sole fii dem Touba ba ñëw. Mhm. waxuñ leen nag ñu sol benn yére. buñ sañoon nag ñu sañse waaye nag xeesal ba xonq ah monte say we. monte say xef. dugg si jumaa ji sinap dugg si jumaa ji sinap am na yoo xam ne nax sa bopp la. yàlla nekkul ci yooyu. xam nga yàlla ci lim nekk. li dëgg ci sa xol. nga gëm sañ Tuubaa sëñ Tuubaa woote. fu ñuy jàngi alxuraan boo mënta jàngi alxuraan. boo yor sa addee joxel. fu ñuy jàngi xasida boo mënta jàngi xasida joxel sa addee. fu ñuy berne nga dem ca wàññi nit ku ci nekk am na loo man la nga man nga nekk ca hmm. waaye Sénégal nelaw ba heure bu la neexee ni nga daan nelawa Ndakaaru wala ni nga daan nelawa Louga wala ni nga daan lekk rek bu boobaat pertement donc man ngaa toog seen kër bañ a dem fenn waaw loolu daal maa ngi ci maa ngi ci kii sama ci ci xale sama soppe yi ndax dama bari ay soppe ay soppe yu jigéen jànkati xes day dañuy bëri soppe bari ay soppe yu góor hmm. waxuñ nag ngir ëpp leen xam-xam dañ ñu bëgg ngir jariñu Touba ku fay dem hmm. da ngay muuru da ngay muuru waykat ba dana muural sa bopp moo la war mhm. bul meesu bul yokk kawar ngir sunna sib na ko bu wér mhm. ab taar jërul xotti ndigal mhm. nee na loo taaru taaru fii la yem nee na ku faatu doo ànd ki përëm nee na doo yóbbu fee lu dul ngërëm day mujj soppi kuy mbugal daal di ñëw nag daal góor ñii nanuy toog ki góor dem ba Touba fu góor ña nekk nga nekk seen biir nekk ci seen biir di wax lu ñor lu ñor Sëñ Tuubaa wutiwul loolu góor ñu nenu togg ki góor mhm. jigéen ju baax day daw góor mhm. nee na waaye bu dee riisoo ki góor mhm. romb na mboob sànni caw xal déggal mboob na ku ko romb jël mboob sànni caw xal boo dëwul da nga tàkk nee na xewu murid luñ koy xamee xasida lan ko daan xamee dëgg la nee na waaye musique bii ak fecc mi nee na tubaab bee ko fi xewal nee xew-xew yi xew ci ngénte yi yebbi bi ak ndayale yi jaxal yi ak layoo yi mu leen ko ko fi nee na roy nga téeméer di séntu ñaar te boo amul ne dootu ñaar nee na leb-leb dërëm di fayu ñaar dafa xaraam déggal ndigal nee na jaxal yi ñu def ci këyit ngir bëgg xam ki la ak bañ a fay ki nga lebul lii du jullit du ndimbal mm. daal di ñëw nag daal ne ah, yow mi ne gëm nga seexu naa seexul xadim lay wax de mm-hmm. nee na royal ci Seex Ibra Baay Faal bu mag ba xanaa nee na boo seexul dem àjjana bu def li Seex Ibra defut bàyyi sa baay ba fa këram mm-hmm. fekk sëriñ ba fa këram di wax da ngay sàkku ngërëm doo batte rem doo def ndigal nee na tey wax ne Cheikh Ibra nga roy déedéet kat ci nga dañ laa war a rey mm-hmm. xamal ne am nga xeetu rey rey ci war baatum ndigal nee na làmp daawut sëqal kawar mm-hmm. du def tànki neen te du soli sagar ah, Cheikh Ibra nee na bëccëg da daan liggéey guddi day sikkal du jëf lu dul luñ ko jëfal nee na yow doo liggéeyal sab sëriñ mm. te doo ko jox lu am njëriñ te foo toll naan maa baaxub sëriñ ah, dëgg la waaye xel doxal <laughs> kaddu yaa ngi noonu jërëjëf jëf mbokk internet Dakar Media amat dañ bëgg te kontaan bi ah, karawaari na jaar na yoon ah, di wax gars yi mooy safar si jërë ngeen jëf mbokk internet Dakar Media dina ngeen ah bu leen fàttali abonné bës cloche yi ñu ànd ak yéen bépp vidéo xamante ne ñëw na incha allah bi dinañ jot ñu ànd ak yéen gi fii ba Touba incha allah fépp foo xamante ne rek war nañ leen mën a indi actualité ngeen ci jot jërë ngeen jëf lan ngay tàggatoo nag waaw li may tàggatoo mooy mm. maa ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu tax mu yàgg fi mhm. ñi nga xam ne dañ may dañ may jàngalooy safar ñëpp ñu ngi woote mhm. waaye maa ngi ifte ñëpp nag ci safar gu mag gi nga xam ne ni maa koy taxawee mhm. ba ànd ko waa Kolobaan kuñ wóolu yow la ku kuñ wóoluwut yow la kuñ wóolu ba wóolutuñ yow la waaye at mu jot ñu ne mi yow lañ wóolu mu ngi ci marché Kolobaan bu mu tuddee ba Basiiru Baabu mi nga xam ne moo jiitu ñëpp sëñ Moussa Baabu mi jiite ñëpp ah waaye nag waa safaruk sëriñ waa daare sëriñ Saliou bu ma tuddee soxna Kine Thiam a jiite ñëpp mm-hmm. ah tudd naa ñëpp maa ngi leen di ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp abbu euh, maa ngi jéglu baax tey dama am tiis sama yaay ji ñu wax ajaratu say Touba Guèye mhm. di di di di di taalibib ma Mahamadul Fadal jiite woon sunu gërëb di sunu yaay mhm. moo fi bàyyi ko léegi ci bëccëg ñu war ko yóbbu Touba suba mhm. war ko ñaanal Touba ñoo ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi jàkkalo ñun nga ñaanal ajaratu say Touba Guèye alali sëñ Fallu yàlla na sunu borom yokki leeram taas ñu ci barkeem yàlla na ko yàlla gisaleeg Cheikh Mahamadul Fadal safarterootina ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti na sunu deret yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu ñuy jóg di way sang be Seexul Xadim addi Sëñ Bamba mooy màggal yi ñu jëm. adduna bu waatoon ne dana mën a am ku mel ne Sëriñ Tuubaa. bis ma ko ci tukki bi ñu ko santaane woon borom